suñu rakk la suñu rakk la parce que bon loolu jot naa ne yàgg na lool depuis ñu nekkee dégg ko fii la ba baax bay man ak Maodo Lamine kon def naa tey comme loolu wax si moom rek laay wax bu ñu ko gisee mu jógee dañuy sant yàlla bu baax a baax di wax ne yaakaar naa bii mooy deuxième fois muy dem benn signature contrat bi kon defe naa waa Malaysia tamit ñu leen di remercier jël waa marché bu du pour nga ñëw remercier parce que bon loolu boo ko yàqal quoi parce que laa ba tey bëri na am waa yu mel ni des fois duñ ko am bu ñu bëgg sa collaboration ak waa yàlla gën a jëm yàlla gën a jëm parce que tamit yàlla gën a yàq Sénégal yi quoi ba tey ba dem ba nekk Sénégal loolu la ñu gën a ñaar bi ñuy sécurité encore une fois di leen ñaanal jàmm yoo xam ne ñoom à tout moment rek ñu ngi ñuy sécuriser di wéyal suñu sécurité di nuyu mooy ki nga xam ne frère bu bëri la man seen yàgg am di doomu mooy Aliou Sy la Montagne maanaam ñu bokk bokk mais Lamine bëri na fa ëllëgee jiw nekk parce que olof dafay wax ne suñu sama moo daa bëri na olof nee na suñu sama moo suñu sama moo daa yaa ngi dégg loolu su ma ko waxee ñaar dégg dégg dégg dégg fa yow saa bii doo bëri man li ma koy soññee mooy yàlla na ko yàlla dimbali muy mën di def yëfi boppam yoo xam ne. ça appartient à lui seul loolu dafa am mais defe naa loolu la ko sëgg parce que ci marsa am naa la tey jamono bi ba tey mu ngi doon bay ci fii kon yàlla dafa yàlla gën a taxaw moom bépp góor la dëgg laa wax rawatina ñu nawet moom tamit maa ngi koy dégg moo duuf comme ni wax léegi waaw kër kër tuddum seere moo ak une fois pour baax la woon fii tey muy bu yàlla bu ñu waxee man du ma nekk yàlla nga ñu nekk moo sa yàlla bëri ba yàlla yàlla sama aar muy moo ànd suuna moom tamit ñu doon ko te xale bu loxoom set di ko bëgg mais borom laa sax defe naa ne boo xoolee position yi muy sol ak nga xam ne nii nga xam ne borom laa baax nga xam ne tuuti moo nekk sa bopp di ko doxal muy xale ba mu am histoire bu nekk baax borom laa baax tamit ñu bëgg bu baax a baax mais ñaar ñii c'est kii dama ko demoon da ngay fan remonté waat ko fii kii léegi mu ne ma man mi ngi lay sama xel daal ndax combat booy wër ma daal ah, loolu la wax de moom muy combat boo xam ne combat bu doy doy waar ak muy finish ko loolu leer na léegi nag balaa ñuy sori encore une fois tamit dalal xelu Sénégalais tamit parce que ñëpp a ngi seetaan di Sadio Mané parce que léegi am nañ information benn masse bi benn masse daal la waa APR ñoo leen communiqué ne benn masse xëy na ñoo koy doon ci mais photo bi moom pour Sénégal dañ daal seen xel Sadio Mané bu soobee yàlla day jël coupe du monde. Ah. moom mooy ministre numéro deux combat bi laa nekkoon ma daal di xam naa si la mais daal mos dégg mais daal mos dégg liggéey bu baax a baax a baax ñagas géer maa ngi géer Thank you.

moom mooy wër di laaj ku ne di sëñ bi loolu laa wax n'est-ce pas. waaw voilà may la loolu mos a xam ne ay ñaar moo tax ñu sëñ bi loolu. boo ko comme ça dafa mën a daal. donc ñu jël daal. gis nga doomu yow fii. doomu yow sax gis nga sax ak sa bopp yow. mais parce que yéen ñëpp di jàppal woon nga mën a bëri. maanaam nga lay jàppale dafa jàppal loolu daal. donc sëñ si sëñ jàpp si daal. il faut que ñu daal sëñ sëñ jàpp si daal. maanaam mën naa ko doole. yow bu dee bu dee parce que relation la dégg ah loolu la dégg doomu yor sa waa ngi tudd ñu ñu ne yaa ngi ko ñu ne ñu ko ñu ne sëriñ bi tam loolu sëriñ jàpp naa ko sëriñ. waaw nag kon nag daal wallaahi wallaahi xaw ma koy ñaan ah wallaahi xaw ma sax koy ñaan ba la ñu. dama naa yaa ne bu ko dugg. waaw te sax loolu la sos. waaw maa sëriñ bi de boo ko jëlee dama xam ne daal la ko baax.

naa ne bu Sénégal bu weesu te loolu mu ñëw ñu sukkandiku ba Sénégal bi xam ne bu yàqu ba mu doon ba mu yéen ba muy daal ba muy daal ba muy daal ba muy daal loolu daal il faut que moom day gaaw daal dafay xeex moom ba cinq minutes ba ñëpp ñëw ba ñëpp ñëw ma doon fa daal bu dee bëri bëri maa ngi bëri dama leen bëri maa ngi bëri kii leen rek laa doon yii moom moom si moom nga xam ne day bëri daal daal tiit dama bëri man sañ si taxaw ak bëri si daal yow yaa yaa ko ma li ko moom itam ko ma incha allah naa ma si leen di góor waaw waaw waaw waaw lëndëm lëndëm ko maanaw waaw da si da si kàttan yàlla njaaga si nii si kàttan yàlla moo ko yàlla mais booy bi ñëw naa la déggoo ma de su ma la jàppee dinaa daan incha allah wax laa am si combat bii nii. billaay wallaay taalaay wax laa si am te lu ko neex na nga wax te bu am si biir dina xam ne dina xam ne lépp mooy mbaal jokkoo mu ne te lépp mooy mbaal jàpp jël jokkoo mu ne. waaw daanaka su ñu laaj man mi nekk bu baax bu tudd daal ci biir bi. loolu lépp la mooy mbaal la jëlee jël su mbaal la pour ma am tey moom mooy ñam sax. Subhanallah, Subhanallah. fanaan ñoom yaakaar loolu bëri naa la wax ah mais boo doo bëri ñu dem ba bi ñu kontaan maa ngi toog di ko gis. ma ñu doon def ñu ne xelal ay dafa am si bëri naa ko wax ne xelal naa ko jàpp dinaa ko daal yaa sama deux cent trois aw ma trois de télé heure jeexal la si gàttam yàlla ku ne ñu wax ku ne doom yow doom yow mbaa la jërëjëf sa yóbbu sa mbaa la pour ma ma dee ma may ñam sas Thank you.

kër gi ñu ne fa ñu yéen da ngay gis sa suuf sa kontaan. day soo bokk loo xam day am daay am am xaj na waaw. ñu ma ngay mànd chaque jour lay ñëw di ñaan ay nit ay suuf. bu ñu am di taxawee. xam nga xam nga xam nga daal ma du yàlla sama commande yi daal yëpp day mën a gis sa bopp pour am pour une une gis sa bopp. tout ce qui est béykat yi day béy. la ay yëngu loolu mooy li ñu tax ñu koy naan foofu voilà kon loxo bi daal di ñu dëgër daal di ñu dëgër maa ngi leen di jàppale ñu daal di ñu daal donc bàyyi ko sama bopp. sa daal lay fekk bi nga amee maa ba mu suuf ba set. amul musuma leen ay daal musuma leen ay daal amul benn benn musuma leen ay daal ma xam loolu. loolu la sàcc naa dara bu gis ñu def ko maa def ko noonu. loolu bu dee ay jaam yow tamit dama ma fi yaaw ñu ko defoon kon comme waa bi dëkk yéen la tax ma soo yow ma parce que ñu daal parce que si ñu naan moo ne ci mën a daal te dama mu

aja.